Euh, mbokk yi euh, ñoo ngi toog ak euh, Serigne Ousseynou Mbacké ibnu Serigne Ateex moom Cheikh Mouhamadul Fadal fii ci Touba Mosquée ci bisub Kazu Rajab ñu di ko màggal fépp ci àddina bi waaye rawatina fii ci Touba. njabootuk Serigne Fallou gi nag euh, ñoom ñëpp dañoo taxaw takku ngir dundal bis bi bis bi nag di bis boo xam ne euh, l'islam moo ko njëkk a màggal waaye li may wax jamono june rek di wax ne Serigne Touba mbooleem bis yu tedd yu baax yi yàlla daf ko ko rafaatalee bis bi nga xam ne mooy bisub bokk na ci ñuy waajal guddi gu tedd muy guddi ka wal mi'raj Cheikh Mouhamadoul Fadal gane si àdduna ñu toog nag kenn ci njabootam muy Serigne Ousseynou Mbacké nga xam ne àdduna bi ñëpp xam nañ ko muy màggal jamono june retour à la Mecque bu Serigne Fallou ci àdduna bi fépp Euh, ci diaspora bi ak fépp ñu xam taxawaay bu mag bi nga xam ne moom lay taxawal Cheikh Mamadou Fadal ñu fekk fi nag tey ci këram mu ànd ak rakkam euh, Serigne Abdou Mbacke ànd ak it ak mbokkam léppam di Serigne Assane Mbacke ñu fa yéene koo tàllal micro mu sànni ay kàddu soññe rek euh, ci bis bu tedd bi nga xam ne Mbacke moom la ñu nekk nii muy bisu Kazu Rajab. ok jërëjëf El Hadj Serigne Sarr sunu genn wàll suñu lépp ci Serigne bi. ñu ngi lay nuyoo tey nuyu mbokk yi janook ñun di ñu topp ci jataay bu am solo bi rawatina ci waxtu am solo yi nga xamante ne si dañ koo jagleel Cheikh Mouhamadul Fadal ñu ngi leen di siyaare bu baax tey bég bu baax ci seenuk boole seen bopp ci bisub sëñ Fallu bi ngir def ci li leen war ba tax ngeen am ci yitte ak jéego yu kawe yi nga xamante ne si am ngeen ko ci ngir wax lu jëm ci bis bi yaakaar naa ne mooy sant ci sunu borom mi nu may ñuy ay jaami yàlla yoo xam ne ñoom ñun la taw feexale ci waxtu wi tembe mu bàyyi noog sunuy sago jox ñu sunuy xel jox ñu sunu wér ak sunu kàttan ban mën a bokk ci ñu koy taxawu di ko dundal ndax bis la boo xamante ne si Cheikh Mouhamadul Fadal mi nga xamante ne si day jaamub yàlla di jaamub yàlla bu yàlla fayee Seexul Xaddim nga xam ne moom ci boppam moom Serigne Fallou la wax ne moo toogoon fii ci këram gii nga xam ne li dox suñu diggante ak moom matul 500 mètres wax wax ju rëy ja waxoon yéemoon ña ko doon dégg ñëpp ndax wax nañ ne sëñ Fallou dafa toog ne ndax xam ngeen ne su ma amuloon sëñ Tuubaa du am ba ci yàgg mu door a firi wax ja ne leen waaw ndax bokk naa ci li tax sëriñ bi am dafa ñëwoon ci jamono doon liggéey ngir yàlla faye ma ko daa di wax na it sunu borom dafa ma bindoon ngir bëgg maa jëfandikoo jëmmi malaayika wala awliya wala lu ko soob bi sëriñ Tuubaa gisee sama cër ca sunu borom nag la jaayanteeg yàlla sunu borom ngir ma bokk ci ak njabootam ngir mën koo liggéeyal moo tax loola it sëñ Touba firi na ko ndax keroog bi nu ñëwee yëgal ko ne ko soxna bu Bousso am na gan wax nañ ne daf daf ne ndokk la ma doon liggéey yàlla faye na ma ko te loolu it mboolem ñi sëñ Touba njaboote di ay doomam ku ci nekk lam ca waxal boppam moom sëñ Touba loola it dëggal na wax ji sëñ Fallou wax ndax sëñ Touba wax na ne mboolem ñi ma njaboote sama doom yëpp ku ci nekk liggéey naa ci yow liggéey bu mat sëkk yàlla suñu borom door door door ma laa faye ngir nga bokk ci sama njaboot noonee la ko waxee ci mboolem koo xamante ne si njabootuk boppam nga Cheikh Mouhamadul Fadal it kon bu ñëwee wax loolu bin ñëwee yëgal sëñ Touba ñëwuk jamonoom sëriñ Touba wax ca loolu sëriñ Fallu moomu it daa daan daa daa di wax ci ay waxam yu siiw ne bis bii nga xamante ne si tey ci lañ koy màggal di ko ci fàttaliku waxoon na moom sëñ Fallu ne bokk na ci bis yi ko gënal ci bis daal ndax ci la yëgee ne bokk na ci sëñ Tuubaa bu mën koo liggéeyal bis boobu bis bii la woon bis bi it tombee ak xew-xew bu rëy ci lislaam rawatina ñun julliti yàlla yi ak lim loon te alxuraan indi na ko kon bu ñu amee tawféexu bokk ci ñu koy dundal li ñuy njëkk a def mooy sant sunu borom mi nu may ñu fekke bis bi ci sunu sago ak sunu wér ba bokk ci ñu koy dundal ñun nag mu mel ne dañuy tudd di tudd Sëriñ Fallu sëriñ lu sagal ñu it ba boole ñu ci boppam njaboote ñu ba nga xam ne bu amuloon du nu am kon lii doon suñu warteef saa su nekk bu bis bi ñëwee nam ko sose woon moom seex Mouhamadul Fadal 1963 nga xam ne dafa laajoon bis bi mu gane woon jamono donte na xamoon na ko sax waaye ci sayir si ci sayir si ñu xamal ko ko mu jógoon doon ko dundalal boppam nga xam ne li dal sëñ Touba daf ko dal sëñ Touba benn bis boo xam ne boromam la ko jagleel te moom ci boppam moom sëñ Tuubaa moo ko sos bàyyi ko fi waaye Cheikh Mouhamadou Fadal it bisam bi it moom moo ko sos bàyyi ko fi kon ñun bu ñu demee ba bokk ci njabootam ñu ñu tudd di ko tudd bu ñu ñëwee ci bis bi war koo taxawu mbokki jullit yi ñëw fekk si nu mbokki taalibe yi ànd ko ak ñun def ci seen alal def ci seen kattan def ci seen lépp ngir sëñ Fallu li ñuy njëkk a def mooy sant yàlla mi nu may ñu am tawféexu bokk ci ñuy dundal loolu yëg-yëg boobu lañ ci am muy bis boo xamante ne si it bisub lislaam la bisub diine la waaye sagu yoonu murit la ndax Cheikh Mahamadul Fadal li ma wax léegi ci njëlbeen gi rek te mu waxal ko boppam loolu moo ne ci moom waaye li nga xamante ne si moom la jënde loolu lépp mooy taalibeeb Sëñ Tuubaa la kon bu doonee taalibeeb Sëñ Tuubaa bu yàlla jox cër yi mu amee yëpp ba tey mbiram dugg ci biir lislaam mbiram dëppoog lislaam mbiram mbiram léppam di diine kon bisam bu ñëwee buñ ko àndeek ak jullit yàlla yëpp day doon loo xamante ne si day gën a dëggal Sëñ Fallu mbiram léppam lislaam la léppam diine la ndax ni ko mbokk yu bari di waxee sëñ Fallou loo la loo ko laaj ci dundam dalay joxañ alxuraan te du ko génn boo ko laajee noo noo tudd mu joxañ la alxuraan foo ganee jamono mu joxañ la alxuraan foo dëkk mu joxañ la alxuraan loola suñ borom defal na ko ko kon xew-xew bu mag bi nga xamante ne si moom Cheikh Mamadou Fadal bis bi mu ñëwee woon jamono daf ci daf ci daf ci sant boromam tamit mi ko baaxee ba mu ñëw ci àddina wax ne yëg gi mu yëg ne bokk na ci sëñ Tuubaa ba mën koo liggéey loolu mooy li tax mu gën koo neex kon loolu mooy yëg-yëg bi xam ne am nañ ko ci bis bi alaaji sëriñ di sant sunu borom di ñaan lépp luy aw yiw yoo xam ne sunu borom dana ko ciy wàccee ndax mënut ñàkk yiw kese rek lay doon ndax ni nga xamante ne si noonu lañ koy dundale ñi ngi ñaan sunu borom mu tasaare ko ci julliti àddina bi yëpp may jullit ñi ne ci àddina bi yëpp ñu am jàmm waaye yoon wi nga xamante ne si ci lañ tënku muy yoonu murit di yoonu seexul xaddim nga xam ne suñ tubaa léppam yàlla la léppam rasulillahi la ñuy ñaan yiw woowu suñu borom tasaare ko ci mbooleem koo xamante aju nga ci suñ tubaa di leen sant nag ci seen taxawaayu rafet ndax yéen ku leen xam-xam ne amu leen jenn yitte ju dul xam-xam amu leen jenn yitte ju dul sëriñ bi seen lépp jox ngeen ko sëñ Tuubaa kon ñu ngi leen di sant bu baax ci seen i taxawaay kër gii nga xamante ne si yéen a ngi ci yëngu te muy kër goo xam ne ngeen koo taxawal ñu ngi ñaan sunu borom barkeel ko ba mu bokk ci kër yi nga xamante ne si ay seetu la ñuy doon ci lislaam ay seetu la ñuy doon ci diine ay seetu la ñuy doon ci yoonu murit ñu ngi sant bu baax te di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatulah wa kooku moo nekkoon Serigne Ousseynou Mbacke ibnu Serigne Atiq ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal yaakaar naa ku dégg kaddu yi nga xam ne moom la fi wax danga nga soññeeku te dara dut la ump ci Cheikh Mouhamadul Fadal wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa